très chers amis de la Sen maa ngi leen di nuyu di leen remercier bu baax a baax si ni ngeen di yàndee saa ak sunu ay programme te seen rubrique décortique dafa ñëwaat ci série Mirage épisode 54 dañu koy door ak séquence bu njëkk bi ñu gis ni géwélu Sadia Bakhoum bi moom nag li mu bëgg mooy jël doomu imam bi daal di koy may Abdoul mu mel ni nag loolu euh, yaakaar naa du jafe ndax li ko waral mooy Adja Oumy Ndaw réputation bu baax bi nga xam ni am na ko ci dëkk bi ndax kuñ dem balay woowee yaayu ndongo yi c'est parce que lu baax lay def ci dëkk bi ak sociale loolu nag la ñu naan nit dafa lëndëm ndax li nit ñi di foog ak liy am du benn ndax Adja Oumy ndaw koo xool si jëmm doo xalaat lu bon koo xool ci jëfin tamit euh, doo xalaat lu ñaaw ndax lépp ma yiw muy loo xam ni kon lu doy waar la lu naqaree xam ba tax na nag lépp lu mu bëgg da koy yomb ndax yaakaar naa kenn rek du gis lu baax euh, di ko bañ euh, te ñëpp dañoo jàpp ni nit ku baax la ba tax na kon imaam dafa gaaw a nangu rekk proposition ki nga xam ni moo di Malaw be ndax nangu na rek doomu Adja Oumou Ndaw ñu jàll ci Birane Birane nag moom euh, mel na ni Abdou da koy mel na ni moom à chaque fois ay faayu Abdou rek lay wax te nag day ñëw di ko kalaame ci Adja Oumou Ndaw euh, te lépp ko lu dul bëgg rek ñu daal di koy arrêté ngir nag mu bàyyi euh, lëmbaata gi nga xam ne mi ngi koy def ci seen organisation bi waaye ku ni Adja Oumou Ndaw moom du nangu benn yoon lu ni mel parce que Abdou doomam la waaye nag pour freiner ko moo tax rek mu bëgg a accélérer mariage bi ba tax na maa law ba ñëw di ko rendre compte te nag bi mu ko wonee photo Adjara da cee daal euh, kontaan mu mel ni kon moom mi nga xam ni moo di Adja Oumou Ndaw genre yooyu moo ko euh, soxal ñi nga xam ni dañoo yiw ngir rekk mu gën a mun a camoufler euh, li nga xam ni nekk na ci ñu jàll ci moom Adja Oumou Ndaw moom nag gis nañu ni moom ak famille wam fexe nañ rek ba réussir ba impressionné ñëpp ndax ñëpp nag lu baax lañ leen di taggee lu baax la ñuy wax si ñoom ndax acte social bi nga xam ni ñu ngi koy def kon képp koo xam ne dégg nga leen rek da leen di naw ba tax na nag ñoom loolu seen jëfin yooyu rek daal di may doomam ki nga xam ni moo di Abdoul waaye n'empêche na bëgg na rek daal di euh, creuser ngir gën a xam kan mooy Abdoul ndax euh, xam nit ki taxul rek nga xam kuy doomam waaye loolu nag li ko may ki nga xam ni moo di Ajara mooy yar ak teggin ndax Ajara yar ak teggin la daal di won ki nga xam ni moo di papaam won ko di kilifa la te kilifa dañ koy wormaal jox ko cër ndax tey su fekkoon ni ko beneen xale la nekk fii di ñàkkante ak papaam mën na mujj bañ def ko rek mariage forcé waaye tey papaam dafa ànd ak moom euh, ci li nga xam ni bëgg na ko ndax dafa a réaction ki nga xam ni moo di ajara ba tax na nag moom it papaam mu bëgg nag daal delloo naar ba xorom ba te mooy nag daal di dal daal di xool bu baax a baax lay dugal euh, doomam ñu jàll ci Abdou Abdou nag moom mi ngi persister ba tey na ni bëggul mariage la bëgg te mooy daal di koy maye may jabar mu mel ni kon moom Abdou yaakaar naa mootu ci dara ndax Adja Oumy Ndaw moo choisir daal di koy maye ay jabar te kon dina ko def ñu jàll ci yaayu ajara moom nag bëggul ñu daal di yàkkamti ndax jàpp na ni rek ajara war a xoolal boppam ba xam bu baax a baax ci kan lay dugg xam kan mooy Abdul euh, waaye imaam moom mi ngi leen di jéem a di zuyaade ba tax na ajara moom daal di nangu ànd ak papaam ci li mu bëgg mel ni kon moom ajara à chaque fois day wane ni euh, ku ñu yar la waaye nag ku am teggin la ci ay waajuram ndax yaakaar naa euh, doom bu nekk say waajur seen bëgg-bëgg war na nekk sa bëgg-bëgg ba tax na li nga xam ni moom la papaam bëgg mu daal di ci ànd ak moom loolu nag yaakaar naa tax na kon mariage boobu mu dina daal di am ci ni mu gën a gaawee ndax ki nga xam di ajara nangu na te ki nga xam ni moo di papaam mi euh, ko war a maye moom it yàkkamtiwul lu dul maye ndax jàpp nañu rek ajaa umu ndaw euh, nit ku baax la ñu jeexal ak abdul abdul nag li ñu naan ku sañ bañ euh, sañ a loolu moom moo ko dal ba tax na tey mi ngi enquête si jabaram ngir nag gën a xam kiñ ko bëgg a may kan la ba tax na maalaw be moom sawar na ci ndax moom xam na ni kooku nit ku baax la te it nag jox na ki nga xam ne moo di abdul laaj na numéro am amaana ngir gën koo miin la wala ngir wax ko mu bañ mariage bi waaye ak lu mu ci mënti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 te ba si de notification bi pour ngeen di jot suñ vidéo yi à temps réel jërë ngeen jëf